Euh, jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñëw nañ nag fi ci cité kër góor gi seet xale bi nga xamante ni euh, ku gis président Ousmane Sonko gis ko ci wetam muy limousine euh, nga gis keroog arrêté bi nga xamante ni jot nañ ko téye ci ci coow li wala boog ci arrêté bi nga xamante ni arrêté woon nañ ko président sun ko dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéel waxtaan bi mbër maa ngi lay siyaar waaw bisimilahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yasril amri waxul uxdatan min lisaani yafqahu xawli salaamaaleykum jiri maa ngi lay fay bu baax. Mhm. noo def ak coono. sant yàlla alhamdulilah. maa maa ngi am jàmm baax baax baax. grand mi ngi si biir mi ngi fi. mi ngi si jàmm waaw mi ngi si jàmm baax mi ngi si jàmm baax. li ma gën dama bëggoon ñu waxtaan tuuti. Euh, sa diggante yow ak président Ousmane Sonko. fan la sosoo ak confiance bi. ni mu demee ba saa suñ ko gisee rek gis la ci wetam. waaw alhamdulilahi rabbil alamin loolu moom question bu am solo la ñun daanaka bi ñuy xam grand bi ñuy xam président loolu yàgg na du tey ay at la ci ginnaaw parce que bi ma daan am combat sax daf ma daan jàppale sans politique te bi ma xamante moom boobu nekkul politicien hmm. waaw dëgg yàlla yàgg na lool te boobu nekkagul sax député waaw vraiment loolu moo indi suñu coloré mu nekk nit ku baax doon ma jàppale samay combat ba suñu joon yàlla tam mu dugg si politique ma andi si ak moom waaw daanaka boo xool def nañ ay six ans sept ans. Mhm. six ans sept du du du ñaari fan du benn fan mais keroog bi ñu lay arrêté euh, arrêt euh, arrêté bi ñu la doon arrêté nan la demee expliqué ma fii. waaw xam naa rek may may ma am ñu ma nuyu tuuti rek après ñu doog a waxtaan wi. di nuyu nuyu sama waa koñ di nuy fi ma dëkk ah, muy Tëngéej di nuyu waa Ngeewul sama dëkku papa di nuyu waa mboor sama dëkku yaay di nuyu waa Tëngéej gi yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn vraiment susu joor ga nag waa gis naa taxawaay bi rafet na trop. Mhm. waa arrêté bi comme. keroog bi ñuy bi bi la takk der yi doon jël boobu xàmmeetuma limousine euh, ndax so soxla woon nañ sa euh, président Ousmane Sonko mun nañu cee jot ñu xam ne bu ñu la tegee loxo tuut dinañ dinañ mën a jot ci président léegi teg loxo bi lan lañ la wax ak bi ñu la tegee loxo ba nga demee fee lan nga fa dund. waaw xam nga yàlla moo wax si alxuraan la xat xalxal insaana fii kabadin maa bind doomu aadama ak coono. Mhm. sama papa dafa ma daan wax ne ma jaxate ma ne ko naam mu ne góor bu juddoo ñu xool ko mu doon góor rek fa la coonaam tàmbalee te ragal féete day xañ a wërsëg keroog loolu la yàlla dogal ñu assumé ko keroog bi ñu demee wax dëgg yàlla jëloo intention def benn violent jóge nañ fii ñu ngi dem pour suñu patron wuy ji ko bi mu demee ñu dem ba ci yoon bi yàlla def dafa xew xew fa. li am am parce que am na yoo xam kenn du si détail parce que tamit comme GIGN ak ñoom suñuy suñuy njiit lañ. Mm-hmm. bu ñu teree dañoo war a bàyyi. comme bu ñu waxee def leen tamit dañoo war a def parce que ñoo ñu jiite. Mm-hmm. te amaana noonu la demee. Mm-hmm. waaw teewul tamit jaay nañ ñu doole yóbbu ñu. mais sant nañ yàlla loolu garaawul. biñ la yóbboo lan lañ la wax. non dara parce que man sama tur njiitu na foofu. amaana xëy na nit ñi yóbbu nañ fa sama tur. si si comme xëy na man damay def violent wala dara ba tax na ñoom bu ñëwee sax ana limousine lañ doon laaj. waaw mais loolu yëpp c'est pas méchant quoi. parce que luy jàll la. waaw luy jàll lii nag ak loolu ñoo ànd quoi. Mm. yoon bi moom moo laaj lii yëpp. Mm-hmm. Euh, mu mel ni bi ñu tegee loxo limousine euh, bari na ñoo xamante ne ci doomu Tëngéej lañ génn nañ manifester wu lakk fa taal juuti beeg yu mel noonu yëpp bi nga ko yëgee nan la la def. waaw alhamdulilah loolu ñun moom lañ xam ñun waa Tëngéej ñun waa Tëngéej ñun moom lañ xam damay remercier Tëngéej gi yëpp parce que Tëngéej ñun loolu lañ xam tey ki fa gën a ndaw ba ki fa gën a ma koo fa laal laal nga ñëpp Tëngéej doon nañ jóg di manifester wu de jóguñu ngir lii wala lee wala lee jóg nañ nag ngir Sénégal mais jóg nañ ngir seen doom ñun Tëngéej loolu lañ xam boo laalee kenn laal nga ñëpp dañuy dem ba jeex tàkk. looloo tax ma gis euh, ki ma seen mu def rasay daa mel ni maam góor la woon mu yuuxu libéré limousine wala. jiite tey nu ma la dóor quoi da nga war a moytu sa bopp. mais dama lay laaj rek. bàyyil ma yeggali ci lancement lancé may lancé waa Tëngéej. pourquoi pas nga ni maam góor di doomu Tëngéej euh, ma ni la ki ma seen mu def ay rasta dafa mel ni moom la nangoo ci soore. maam xoolal bàyyil ma expliqué la affaire ñu doog a dugg ci kàddu <laughs> maam góor bëgguma sax di wax say waxu maam góor. parce que day ñaan audience. fan lay ñaanee audience day bëgg a gis président maam góor day bëgg a gis président. man bu ma la nekk Macky Sall la nekk président de la ku nekk non xoolal bu mu nañ détaillé suñu. wax ma ban kan la bëgg a gis. ku mu gis Sonko la bëgg a gis dafa bëgg gis Sonko. foo loolu. waaw man man fii laa dëkk fii laa nekk li ma la wax ay lu leer laa la wax moom du dara. moo waxee waxu maam góor dama ni xaaral ma expliqué la ci may wax waa Tëngéej man waa Tëngéej laay lancé. loolu loolu yéeme na de. mu mel ni kon euh, doomu Tëngéej yëpp keroog jug nañu en masse wane ni ki ñu tee euh, suñu doom la suñu frère la suñu xarit la suñu lépp la euh, dañuy génn wane ni am nañ lu ñu metti ndax malgré président Ousmane Sonko teg nañ ko loxo mais tegaat nañ ci beneen doom boo xamante ne doomu Tëngéej. waaw mooy li ma wax rek ñun waa Tëngéej ñun loolu lañ xam. nee naa la ki si gën ndaw ba ki si gën a mag koo ci téye lakk nga sa musiba ñun xamuñu loolu parce que ñun dañ gëm ñun Rufisque lañ gëm te ñun dañ yàgg wax ni dañ bëgg a jël drapeau Rufisque bëgg nañ ci bokk ci ñu koy yóbbu fa sori ba tax na koo ci laal ci kër gi gën a ndaw ba ki gën a mag muy jour bi di football bi di di di di koo ci gis kuy nappa ku mënti doon koo ci laal rek laal nga ñëpp ñun waa Tëngéej loolu lañ xam ba tax na may lancé waa appel waa Tëngéej di leen wax ni man vraiment Limousine sant naa leen gërëm naa leen parce que gis naa taxawaay bi ñi mënul wax estati na ñii vidéo na ñii def nañ lépp la maximum ku nekk li nga man def nga ko ngir Limousine génn ginnaaw yàlla loolu am na man nag amu leen lu may wax di leen sant di leen gërëm te di xamal nag doomu gars yi Sénégal laay yax ñun waa Tëngéej li lañ xam ñun solidarité dañ xam koo ci laal laal nga keneen waaw. mu mel ni euh, bi ñu la bi ñu la tegee loxo euh, bi nga génnee da ngaa génnaat rek nekk ci say activité kañ lañ la bàyyi. keroog ah une heure ah, xaw ma ban jour la lundi xaw ma si guddi dimanche waa dimanche si guddi. dimanche si guddi ay une heure yooyu deux heures. deux heures du matin une heure lañ laa egg si fii Mhm. ci kër voilà ci kër nga xëyaat nekk ci liggéey ñu xëy même chose suñu patron yàlla def mu génn ñu nekkaat ci liggéey bi rek waaw. Mhm. Ah, bari na ñoo xamante ni joxañ nañ tuuma euh, waa làmb te yow doo njabootu làmb dem nañ ba ni gis nañ ay nit ñoo xamante ay nervi lañ euh, ñu nekk ci ay njabootu làmb yor ay yat ñuy yor ay jaasi ñuy attaqué population bi loolu loo ci mën a wax. waaw alhamdulilah loolu moom ñëpp ko gisandoo. mais Sénégal dañu war a bàyyi ku ngànt rek ñu ne mbër la. nit dina poser soixante kilos wala soixante cinq kilos. mais fulla ak fayda gi mu am ba yàlla moo ñaale ko mu respecté ko nit dina poser cent cinquante kilos te du ko am. dañ ne judd bu rëy fulla ak fayda <laughs> man doomu aadama duma jël naan kaay xeexal ma. maa ngi liggéey ak sama président yàgg nañ. mais yàlla xam na ne santuma xeex santuma xuloo kon lan mooy ndayu benn doomu adama keroog suñu président wax na ko Gris Bordeaux lan moo tax nit di jóge fële fay la bu doon fay cent mille pour nga dóor ab Guinéen sax jaru ko sàkkantumaa na ngay dóor ab sénégalais ab doomu réew. du ko rëy rek ñu ne mbër la te ñooñu ngi gis ñu ngan ñooñu doxe ay ambulance perdu lañ. loolu. ambulance perdu mooy ku amul xel. sax laa koy mën a jàppee di dox rek di dóore di dem. parce que tey ji yow nit dina rëy. di yagar yagar di dem. mais ruu gi doxatul loolu moo leen dal bu seen ruu doxoon dëgg ñuy xalaat amaana duñ jël doomu aadama yi di leen dóor. kon yow da ngay wax li Père Pa la wax sànq ni ñooñu duñ ay njabootu làmb bokk nañ bokkuñu ci làmb. non bokkuñu ci làmb ñàkk gëm sa bopp moo waral ñu lay fay bu doon trente mille sax ngay jàpp doomu aadama du ko dóor nee naa la bu doon malien sax jaru ko bu doon malien sax waroo ko dóor sàkkantu ki ngay dóor sénégalais la comme yow dëkk ci réew mi ay élèves di jàll ngay përëx përëx di dóor. du ñu ay nit ñooñu ambulance perdue lañ noonu laa leen mën a jàppee parce que tey jii nit dina ngand nga jàpp ni kii nit la nit la ci ñii si jëmm mais ruugi feebar na parce que xalaatul te nit bu xalaatul rek mooy waral muy def genre jëf yooyu pour mën na ko am xel di xalaat dëgg waroo yor sax kuur nii rek di dox waxtuma nag nga yor ay kuur di dóore pour lan te yow yow muy dóore yëpp buñ la dugalee ci làmb nga jënd galaas boo xoolee ñooñu di dóor noonu yëpp kenn xa bu ñu leen sumi woon nii mënoo si xàmmee kenn. te te ñun si ñun ñoo leen di jàpp di leen dóor ñun waa làmb yi bëri ñoom ci arène bi ñoo di jàpp di leen dóor. ñuy jàpp waa ko mbedd mi di dóor da ngay jàpp waa làmb ci biir làmb nga dóor leen moo gën nag ngay dem si mbedd mi di doore pour lan man noonu laa ko gisee. bari na loo xamante ni ci li wolof naan ñiy gàmm ak ñiy raas dem duñu benn bari na ñoo xamante ni ci mars bi bi ñuy mars am na ci ñeneen ñoo xamante ne ay defkat lañ dugg ci biir mbir yi yàq mbiru jàmbur yu bari ñenn ñi nga gis sax ku ci génne fetal jàkkaarloo boutique yu jàmbur di ko tiire pour dajj boutique bi ñooñu lan nga leen di wax. waa loolu moom vraiment man sax dëgg yàlla li ma ko jàppee xam nga réew mi xaw a yëngu rek. réew mi moo xaw a yëngu parce que yëngu gi mu yëngu moo waral lii yëpp am. réew mi yëngu mu yëngu moo waral lii yëpp am mais xëy na bu demee woon neneen du demee nii mais tey jii ñun gars dañuy jóg du dara moo tax ñu jóg parce que xol yi ñoo jeex xol yi ñoo jeex moo waral gars yi jóg mu demee noonu mais nag buñ ko jàppee nit ñi xëy na àdduna moo demee nii tey rek Sénégal sax laa moo demee nii mais am na ñu fi jaare jaare jaar te gis ñu mus ñu am lii mais kon lii bu amee rek am na lu tax waaw man message ngay lancé population bi rawatina waa Tëngéej sa kàddu bu mujj. kàddu bu mujj moom mooy li ma la wax léegi rek sànq yaa ngi may dugal ci cadre maam góor. Mhm. yow yow say vie ngay xool quoi maanaam nit ñi di la vie di la aimé pour compte bi am dara mhm. mais yow xalaatoo da nga bëgg ma wax maam góor fii dara soo mu yónnee ma plainte maam góor moom ma pay lijjanti. bu ma dugal ci cadre bi maam góor waay. <laughs> ah boo la ëpp maam góor moom ëppay lijjanti moom jaaykatu xeesal la woon mais daanaka moom ëppay lijjanti waaw jàmbaar la nag mook Assane Pël ñoo jàkkaar la woon vie Tëngéej. waaw si côté maire marché marché biir marché noonu. Ah. ki naan Assane moom bokkul woon ci ñi la doon marché. maam góor maam góor marché la maam góor kay bës fi mu ne may andil añ ba léegi <laughs> parce que du doomu Tëngéej de. non maam góor doomu Tëngéej maam xam nga loolu sax maam Ngor Diir du. Tëngéej la fu mu dem drapeau drapeau Tëngéej lay lay représenté fu mu nekk. ban drapeau Tëngéej ban drapeau Tëngéej ñi représenté drapeau Tëngéej gis nga leen ñoom dawuñu si dara ñoom ñëpp dañuy gis nga xam ni kii Tëngéej lay taxawal. mais kuy dem ni taxawal fee nag pay ji la preuve rek tey bi ñu jàppee limousine waa Tëngéej ñu bari dañ jóg. boo saagaa limousine ñu bari waa Tëngéej dañuy jóg. maam góor bu la neexee am na ñoo xam lu neex lañ ko wax te duñ ko duñ sax duñ sax ko sax lijjanti ndax doomu tëngeej de wala boog doomu tëngeej la woon mais léegi nekkatul doomu tëngeej de waaw vraiment maam góor doomu tëngeej maam góor voilà ah, ah. maam góor doomu la gën a niróol <laughs> xam naa rakku Marème Sall la ko rakku Marème Sall la ko ak ak Macky Sall. Mm. Mm. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax di am kontaante kàddu yi rafet na lool lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga ko cee sànni. waaw mooy di di di di gërëm ñëpp rek di gën a jaajëfal waa Tëngéej di wax gars yi nañ dellu seen xel tey boo gisee sax ñu génn di wax ci lii nii ça veut dire que ñu ay mbër lañ te keroog li fa xew te jàpp nañ ma nit ñi tam ñu jàpp ni limousine dafa ñëwoon pour jour boobu kese moo tax te loolu taxul man yàgg naa ànd ak Sonko di liggéey te lii dara xewul kon bu lii xewee rek ja duñ buñ buñ jàpp ni keroog rek loolu dafa am juróom lañ ma jël moo tax ñu jàpp ma te yaakaar naa am nañu ko comprendre mais am nañu ko comprendre lool la bis topp nag may lancer appel waa Tëngéej di leen wax ni sant naa leen gërëm naa leen gis naa taxawaay bi gis naa statut yi gis naa Facebook bi gis naa lépp lépp Instagram lépp wax dëgg yàlla taxaw nañu wu ñu war a taxawee di gën a gërëm nag ñi nga xam mooy cent pour cent Rio bi waaw di si jiital Badou mbay moom mi kër yooyu lépp gis naa gars yi ni ñu taxawalee defar nañ lépp li ko daggee ci mbër mu mag ba ci mbër mu ndaw gis naa taxawaay bi gis naa marche yi ñu bëgg def gis nañ bëggoon def gis naa lépp sant naa mbëru tëngee yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu sama copain yi nag bu baax a baax sama gars yi nga xam ne vraiment bi nekkee si biir métti woon na ñu ngi doon jóg kër muy waa nii maa ngi sama copain yi ma jox nuyu bi Assane Thioune mu sànni ma ko gars yëpp di nuyu Khalifa ak Assane kii Ousseynou ak sama gars yëpp bàyyiwuma kenn mais vraiment tamit maa ngi sant encore une fois waa Tëngéej ak suñu waa dëkk waa Ngeewul ak waa Mboro maa ngi leen sant bu baax di gërëm di sant bu baax sama yaay parce que sonn waaw demee na métti na trop mu jooy wala mu kii mais sant yàlla la parce que góor moom moog li ñoo ànd. te dama jàpp ni keroog ni mu demee noonu la war a demee chaque jour mi ngi daan neex ñuy ànd man ak président muy neex kon keroog bu méttee dañ see war a ànd loolu laa ko jàppee woon rek maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm. maa ngi nuyu Bas ak euh, jiiri bëgg problème. mais mais mais sa diggante ak Serigne Ndiaye 2 bu faas lan la gis naa ko mu def estati souhaité la ñaanal la euh, xam ni ci njabootu làmb nga bokk seen diggante lan la yéen ñaar. Serigne Ndiaye. Ah. Serigne Ndiaye wax dëgg yàlla moom xam naa li ñu daan daje Sall lañ daan daje rek mais mosul wax sax ma wax. ah vraiment mosul ñun naan nañ nuyante Serigne Limousine nice mais mosu ñoo seq euh, euh, relation quoi. gis naa mu mu mu sa benn foto mm-hmm. ñaanal la ci euh, waxal la ci lu bëree bëri loo xamante ne. waaw mais mbër laa muy mbër rek. te bu ma dugal nag day bëri sama mbër soko si ma bëgg soko sim daan ko. bu ma dugal jiili wasalaam bas. <laughs> wax nga dëgg jërëjëf. li ma si jërëjëf. <laughs>